waaw dañ leen sacrifié woon. Ah, ah, ah, moom kay gis nga ko lu ne daal def nañu nu ko. lamb ji ça fait un mois quinze jours combat Tapha Tine un mois quinze jours fii lay fanaan ci kóob bi nii ñemewuma fanaan ci néeg. un mois quinze jours nangu ñemewoo dugg ci biir néeg. wallaahi wallaahi lal asim te dernier jour trois semaines yi des yëpp may dem entraînement dama ko woor.